manqué non Ndiour ban na de waaw waaw tey ndeysaan final Modou Diam Terry Papo Ngane fii ci Ndiaye Ndiaye Fatick lay xewe Modou Diam Terry dem na waaye Pape Ngone bañ na eh Sosokh jël na ko cay doole feeñ na foofu ñaari booy lañ desaan Dame Seri Babou Ngane lii combat la combat bi metti na eh penalty na foofu penalty am na foofu de kan moo koy daane Modou Diam Terry war na ko namu Modou Diam mu ngi koy dul Modou Diam Terry bëri na ko Modou Diam Terry mu ngi koy bay eh, eh Modou Diam Terry daan na Babou Ngane Modou Diam Terry jël bi waay.